amul dërëm xalaat yu jàppale yaa eh? Dakaru sel Dakaru sel no no no sell non keneen ki après mais kenn ngay dugal comme comme sa morom après nag nañ xool dañ koy xeex sa morom bi mu ñëwee dañ koo tere kenn waaw bëgg ko non après du ma ko xalaat du ma ko kii kii sama kii jaw du ma jaw moom eh bindal eh bindal

sama mbokk ak na Dodo amana mu ngi noonu magal Arafat dañu noonu mais gis naa ne ay béjjën waaye béjjën waxuma la béjjën li raw béjjën oto baa ngi noonu teg fa jeexam mais mais tey aada beer balaa la def. waaw waaw beer balaa la laal aada tey beer balaa la laal. aada ngi noonu. aada ngi noonu. aada ngi noonu. nee na ñëpp puus. nee na ñëpp puus. aada ngi ni Dakar lool. ñu ci dernier réglage yi waaw ñu ci dernier réglage yi Ada ngi nii Ada ngi nii Ada wàcc na yor sengoor bu rouge Ada ngi noonu ñaari mënu cee ñàkk moo tax bu ñëwee dafa nuyu ci pentak ñaari moo tax ah, ah, ah, di wax ak sëñ Mor koo koy sëñ Mor mu ngi wax ak sëñ Mor sëñ bi nag waaw bëgg sëriñ am maa ngi koy dee xam nga suñu xarit suñu lépp suñu doom waaw muy Papa Bari Bari. waaw Papa Bari Bari. waaw. awareeg mu ñëw si signature bi. mu mhm. grand fan dëkk. ñoom xam nañu ko waaw mooy loolu kenn du la wax. Mhm. nee naa la bàmmeel amul puusal ma tëdd. nga ni ma lan. ak Allah di fàllu. bàmmeel amul puusal ma tëdd. laa wallaay tallaay. danaa a loolu amagu ko si tarbaale ma waaye boo ko eh. waaye nangu woo liggéey demal nga liggéey bébé Modou Lo bébé Modou Lo daa pare de barki Allah gi boo parewul nee naa ko si tarbaale ma kiraal yaa ko wax bay boo xaw booye demal nga liggéey ak say mbokk eh. laa wallaay loolu ama ñaa tugal dëppal la bari sel day taw rek bari sel ñaa ngi yaay billaay wallaay tallaay nee la ku tiit yàlla rey la te ko pour malaaka bi jël si la. ñu ragal waruñu. muy loolu. billaay yow. la wir ngeen di xam. Eh. si kàttanu yàlla. jërëjëf waaye di leen gërëm gars yi li nga xamante ni mooy message yeeg xabaar yi ñu ngi tuddee kii ak son xabaar yi. waaw taw yi waaw taw yi waaw xabaar yi. dafa mel ni tey ñu ngi laajte ñu ngi leen di bokk di. waaw loolu la demee ba. waaw dinaa leen tawee. est ce que baari baari xam na fi mu mutlu. baari baari baari taw. baari taw. sama maa tax sama maa jóg. dama dama ma laaj léegi mu ne combat bi am na lu mu séq ak yow lu duma la bëgg a tëdd. Ah. nee ko man la jàmbaar si biir jàmbaar yi. sama deret tuuru moo gën sama dara. dégg ma li nga wax de. man la jàmbaar si biir jàmbaare. sama deret tuuru moo gën sama drapeau jiw. lan lañ mën a xaar ci combat la ñu. moom ñun ñun ñoo ko indi ko fii. booy bi taxumaa jóg contrat bu yàgg laa seeg ak moom. neen da ngaa dawoon moo tax nga naan sa loxo day mel ne da ngaa dawoon moo tax. waaw yàlla baax na bu ma ko jaabee dina xam dina xam du jàmbaar. bari Serigne Ba. bilaay. lan mën a xaar le huit si combat. dem ah dóor mooy loolu. gis ngeen ko noonu mbokk yi ñu ne fi nga xamante ni moo di buntu 2STV face to face bi nga xamante ne Ada Fass da koy def ak ki nga xamante ne moo di Zos ay Gomis. Ada Fass tey li ma gis. Ada Fass li mu la li mu sàngoo lan la Gomis. Ada Fass mi ngi sànq lan la kenn xamul ay lu weex ak lu ñuul lu xonq ak lu ne gis naa ko loolu gis naa lu ne tey. tey gis nañ lu ne rek. barki yàlla lu ne laa gis tey. laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah mais Ada a boole ci soo xare bu ñu ko fekk woon. waaw moo def rek ci def def naa sax soo xare bu ñu ko fekk woon mën a yow yëpp ñu jël ko. mais bii passé dem naa démb mais tamit liggéey na. booy bi bu ma ko gisaatee xam naa ne liggéey na quoi. dafa mel ni bi mu demee li ko gars yi waxoon dafa dem waxtaan ak njëganaayam dafa mel ni dem na waxtaan ak njëganaayam. waaw def na loolu. te déglu nañ tamit ay conseils la. loolu ba pare gars yi tamit moom tamit mu ne ma loolu paase na. Hmm, day sax tey bu ma ko jëlee danañ ma danañ ma njaago ma ne ko ah mu ne ma loolu daan laaj. loolu du ah. garaaw mais jëm bu ma ko seetee si entraînement. à la fois lu garaaw ngay gis bopp nag waaw nga xale bi jigéen bi mën a toog parce ko man man kay man kay xaar ñu ngi koy xaar ñu ngi koy xaar si wàllu physique si wàllu technique aussi maa ngi doon gis Adama moom ak plateau doom ndeyam jóg jóg naay ay professionnel ndeysaan da comme ni mu ko waxee Gomis rek euh, Ada Fass mel ni bu mu demee waxtaan na ak njëgënaayam ndax tey ku gis forme bi ñu indaale da nga xam a moom sax foofu noonu ah, mm-hmm. na ni de. d'après les informations Zoss dugg na kon ñun dañoo tardé Zoss dugg na gars yi. waaw wax nii léegi. waaw gars ñu Zoss na kon dañuy jéem xool li nga xamante ne moo fi jot a am ñu indi leen am si biti ak li nga xamante ni moo jot a am fii si bunt bi 2S gis ngeen ko noonu mbokk yi yéen ñi nga xamante ni yéen a ñuy suivre ñu leen di jaajëfal bu baax à travers fii ak waa Europe ñi nga xamante ne ñoom diaspora bi amuñu seen fay yaay amuñu seen fay yàlla rek am seen fay yàlla na leen borom bi fay yéen yi nga xamante ni yéen a ñuy bëgge encore une jërë ngeen def mbokk yi xanaa ñu xaar li ambiance bi rek ñu indilaat leen na ko léegi incha